leneen li mooy euh, l' Afrique au sud du Sahara Hegel disait que l' Afrique au sud du Sahara ne fait partie de l'histoire universelle <laughs> c' à cause des principes comme ça xam nga au lieu ñu jiital suñu raison ñuy jiital suñu xol suñuy émotion suñu xol et cetera mm-hmm. mais vraiment ça ce sont des détails de l'histoire ça n'a rien à voir avec des gens qui aspirent nest pas à gouverner un état et à mm-hmm. ajouter un mm-hmm. plus n'est-ce pas il faut gérer ces détails pour pouvoir y aller donc gis mooy que véritablement il faut travailler sur le capital humain ah, bah, chez bah. les Sénégalais mmh. loolu c'est principe boo xam ne tous les partis politiques dañu war a accorder une place importante au mm-hmm. capital mmh. humain parce qu'au Sénégal 57 à 60 pour cent de la population elle est elle est analphabète ah tout à fait te xam nga les dangers de l'analphabétisme jëlal koo xam ne il est bu demee jënd ordonnance pharmacie buñ ko waxul nu koy naanee mën naa rey boppam tu as vu la population ils sont analphabètes ça veut dire que jànguñu mënuñu lire jànguñu et cetera mais information yi ñu waroon a am sax amuñu ko ñooñu nag nga mobiliser leen dafay yomb. nga hmm. dugal leen ci lu nekk ñëw. lu am rek nga dugal leen ci dafay yomb. parce que ils ne sont pas suffisamment outillés. Hmm. pour faire face à la réalité ambiante. Hmm. donc côté boobu aussi nit ñi. dañ si war a travailler mais encore une fois je dis. li ngay wax léegi revenir à ta question. Macky li tax mu renoncer à sa candidature. ne va rien changer à la situation politique du Sénégal. Au contraire, c'est maintenant qu'il va commencer à massacrer tous ses opposants. Il a le champ libre. Bu leen fàtte ne Macky euh, c'est le genre de personne attends bon je parle je parle de sa personnalité hein donc le hmm. euh, président offensé wu ma la defuma dara mais d'après ce qu'il est <laughs> ah. waaw xam nga Sénégal dafa am dafay waxee je ne le président d'analyser je vous beaucoup de respect. Voilà, je suis sociologue mais Euh, Macky li mu jot a wone dans son parcours dafay koo xam ne dafay fayonte boo ko defee benn affaire dafay fayu. mën na ko téye waaw xam dafay fayu donc ne croyez pas que pare na ci combat bi. pare wu ci de pare ci à écraser tous ses mm-hmm. waaw xam nga problème bi lan la. Mm-hmm. man duma dem. Mm-hmm. mais it am na loolu mooy principe. xam nga donc dina fi toog. dina désigner kenn. dina ko campagnal. day campagne de parce que le problème de Macky c'est son après mhm. Macky prépare son après boo gisee jalon yi mu posé yëpp organiser le secteur du pétrole def des avancées sur le plan éducation def des def parce que en termes de bilan il a un très bon bilan. il a un très mhm. bon bilan il a personne ne peut attaquer Macky Sall sur son bilan. non du léegi Macky ce qu'il prépare c'est son après pour ce qu'il va léguer kan moo ko mën a continuer quelle est la personne qui peut s'inscrire la continuité de Macky Sall. c' est ça qu'il est en train de gérer. Mm-hmm. et sur cette voie képp ku ko bëgg a contrarier parce que xam na ne bu dee Karim la peut-être Karim ne pourra rien faire Karim. Mm. ñeneen ñi peut xam naa ne xeeb na leen am na ñoo xam ne dina leen tëye parrainage ay ñi gars yi ngay dégg yëpp parrainage la leen tëye parce que bu ñu la amal treize députés xam nga assemblée ba ñee fa nekk quatre partis fa nekk ah. Mm-hmm. <laughs> quatre partis fa nekk ñi mu naan da nga am treize députés yu la parrainé pour nga nekk candidat. am na ñoo xam ne du ñu ko am. mais à défaut. à défaut parrainage bi ñuy xet waaw dañuy fàtte ne le poids électoral du Sénégal yokku na on est à sept huit millions de personnes inscrites donc c'est pas facile. moo tax la bëri kii pourcentage bi te même bu ñu ko wàññee. c'est la nombre d'électeurs le nombre d'électeurs il a augmenté. sur le fichier. waaw ba pare kenn ci ñoom yore fichier électoral bi. Hmm. kenn ci ñoom yoru ko. tu as vu donc nañ ci def ndànk. professeur analysons les choses. froidement ñu bàyyi les petits détails parce que loolu c' est pas ça qui va servir de le Sénégal. loolu moo wax ko politiciens yi. waaw non politiciens yi laa a il a déclaré. Euh, léegi Maria foofu la ko de grands débats. Mhm. avec de grands hommes. Mhm. des gens qui portent l'histoire tey si vous êtes citoyen vous le devez à une personne il s' Napoléon Bonaparte. Mm-hmm. si vous êtes allé à l'école c'est à cause de Napoléon mm-hmm. si vous êtes dans une république c'est à cause de Napoléon tu as l'histoire qui s'incarne en des personnes pour que ñu poser des jalons supérieurs c'est pourquoi Hegel di wax la conscience est le but final de l'histoire ou mm-hmm. est simplement un accident su fekkee ne c'est un accident moo tax kon ñun ci lii rek la ñuy dee dans de petits détails des querelles de clocher qui n'avancent en fi dafa war a nekk loo xam ne c'est ah, quelque chose qu'on va léguer war nañ xoolaat suñu bopp de. voilà merci beaucoup.